marhaban gréewu xiifal bu Guy Marius Sagna ak ñu mu àndal di amal ci prison bu rëbës moom la mboolem yéen kay kaay xëyandoo ni kité ya le quotidien ya mi jàngale ci université Cheikh Diop wa ginnaaw bu mu sooboo itam ci bii la la ci infirmerie bala mu jéeni ki dëmb ginnaaw bu mu loofe ya ankay ah ndaxte su ñaatango yi ñu ngay xam le ne yaa ginnaaw benn guddi ci prison bu rëbës moom Babacar Diop dañ kaa mujj internet ci infirmerie bu rëbës avocat mi koy la yool moo ko daal di xamle ci biir boobu la yéen i kaay maître Khoureyssi Ba ba tey ci biir yéen i kaay le quotidien fay xamle ne yaa ni ki tey dinañu daal di saisir chambre d'accusation wa ngir mu dakkal bii le mandat de dépôt mi mu daal di gàll ci loosu Guy Marius Sagna yi àndandooma ay àndandoo professeur Babacar Diop ci université Cheikh Diop bu di ay jàngalekat fu mu toll nii daal na mer bay futtu ah kay ndaxte yéen kay laas ma nga xamle ne lu war toll si ñaar fukk ak ñaar ci ay professeur ñoom ñoo daal di signé ab pétition ngir ñu bàyyi seen bile natango Babacar Diop jàllut ci UCAD déedéet ndaxte am na ay professeurs yu daal di lànk bi tëres bi yaa ne ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg libération am rek la ñuy sakkuwaa yéene kayu enquête ne yaa njiit réew bu Sénégal Macky Sall jamono jile tembiya dafa mel ni kuy dajale ay musiba ma bakkumba di ci toog ah kay ndax ay politiciens yu bëri yi amee woon ay woroo seen diggante yaa bee sax ci ay citoyen tàmbale nañoo gisee di dajalo waa te woote la ñu waa te ñu ànd ak Guy Marius Sagna ñu teg le loxo waa suñu naataango groupe Futurs Médias ne yaa ñooñu ñu tegoon loxo ci buntu palais de la république bokk na ci ay étudiants benn professeur ak rappeur ñoom la ñu jàppandoog Guy Marius Sagna di njiital FRAPP France dégage yéene kay Walf Fadjri daal di koy feeluwaa ne fu mu toll nii Sénégal bu dee mënees nañ ko méngale ak bombe jamono jile yaa lépp yem bana ngir mu daal di explosé yaa ndaxte lu ko néew fukki at bu njiit réew bu Sénégal Macky Sall toogee ci bopp réew mi yaa te mu soobu ci lu dara ci bi la ñaareelu mandaam jamono jile yaa dafa mel ni yaa Sénégal yi yaa yaakaar bu tas la ñuy dund waa ndax ay jafe-jafe yu dul jeex ci biir gouvernement bi ya Walf Fadjri Quotidien ne bokk na ci ya mbir mu faux billets jiiñante bi ya ci assemblée nationale jëm ci lu ko alalu réew mi ya tamante gi ci biir APR suñu naatango yi daal di ci teg ne ya réalité économique moo daal di dab itam njiit réew bu Sénégal Macky Sall ba tax jamono ci liyaa ñu daal di nemmeeku ay yokkute ci fépp rawat na njëgu courant mi ñu daal yokku ci barki Dembo Ndiaye rawatina njëgu carburant bi ak itam njëgum courant ci barki Dembo Ndiaye barki Dembo Ndiaye la yëkkati woon ay kaddu yu weex xat wa suñu naataango yi ne ya premier vice président wu assemblée nationale delluut ci ginnaaw ba ci defante ci diggante ma présidentiel mi mu lu ni mel tax suñu naataango tribune ne ya bu Sénégal Macky Sall daal lool kii di Moustapha Cissé Lo ah kay suñu naataango yi daal di fësal ab baat mi mu ko ci Moustapha Cissé Lo moomu la moom njiit bu Sénégal Macky Sall il m'en dispose moom Moustapha Cissé Lo bu ñu sukkandiku ko ci boobu le parti ya te jàpp nañu ne doxalinam waroon na lool ak jëmukaayu APR APR boobu le sax bu ñu sukkandikoo ci yéen kaa sur quotidien jamono ji le tembe daa mel gu sambarax ndax pocco guñ ci nemmeeku ak jaxasoo gi lu lu mel nag warut a kenn ah kay ndaxte suñu naataango yi ñoo ngi xam leen yaa parti la bi nga xamante ne ba léegi yaa kenn structuré ko texte yi itam ñi ciy lu leen neexut di ay frustré ak ñoo fa ci doxalinu parti politique yi fii ci Sénégal suñu naataango yi ne yaa parti yaa nu ñuy bëri ci mim réewa daanaka noonu lañ ñàkk sàmmonte ki yoon ahankay ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom parti politique yi ne fii ci Sénégal daanaka ñaar fukki képp ñoo ci sàmmonte ki yoon bu ñu sukkandikoo ci yéene kaay la Soleil ya yéene kaay waa Grand Place moom li ko soxal mooy Barça mbaa Barzak mi dikkaat suñu naataango yi ne ab gaal mi yeboon ñu bëggoon màngaan gi yaa këpp ci Mauritanie juróom fukk ak juróom ñett ci ay doomi aadama ñoo ci jot ñàkk seeni bakkan mu bokk ci ay doomu Barsu la di dëkku Yaxya Jóob Yékini ya le témoin quotidien ne yaa fukk ak ñett ci ay sénégalais ñoo jot a ñàkk seen i bakken ci biile gaal mi daal di këpp ci waxu Mauritania l'observateur dëggal bile xibaar ne axankay ah fukk ak ñett ci ay sénégalais ñàkkaat nañu seen i bakken ci biir géej gi yaa juróom ñett ci ñoom ñoo mujj rëcc jamono jile yaa ñu ngi ci loxol autorité mauritanienne yaa ñu leen di wàllu si yaa te monte de ñu ëpp ci ñoom ñu loru jamono jile yaa ci biile Mbarsamba Barzak te seen gaal ñeent fukki junni ba ci juróomi téeméeri junni la ñu daal di génne ci seen gafa ngir songu mbëkk ñoom ñu ngi bàyyi ko ci ak Bassar waaye bu dee ay sénégalais yu ñàkk seeni bakkan yéen a kaay enquête mu ngi xam le ne yaa ay doomu Karang la ñu yéene woon Gambia bii la gaal mi daal di këpp foofu la ci Mauritania yéen a kaay Le Quotidien mu xam le ne yaa Gambie la bàyyee ko waa ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre mi ñu weesu buggoon a utali Europe bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñu ci rëcc nee nañu seen carburant moo jeexoon na jàngeen jëf